sëriñ bi nee na mi ngi leen mi lay sant bu baax. di la gërëm itam. ñu ngi itam président. nee na ngi nuyu président di ko sant. di ko sant di ko gërëm. di ko gërëm. yéen ñi nga xam ne ñu yow ak ñi nga ñoom nga àndal. te jiite leen. Hmm. ñaan waaye nga wax ne itam moom moom nga ne ñu def ko ñaan itam. danañ ko fas yoo xam ne seen yoon du booy incha allah. ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko. ci turu réew mi. ak borom réew mi. def na ko aw sasam boo xam ne fas ni yéene du booy. incha allah incha allah. waaw li ci itam. li leen daal dénk li mu leen daal dénk. démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. ci sunna. ci sunna sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey wattandiku ak tooñ te sax ci jub te sax ci ak jub te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk eh, eh, njéem àddina xam ne ñoom la yàlla dénk njéem ji te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri àdduna ji ñi seen kilifa itam waaw ngeen dimbalante ñoom ngeen daara ba ca gën ba gën a rafet te lépp loo xam ne luñ soxla lañu hmm. soxla soxla lañ ko hmm. te suñ suñ diine ko hmm. ñun ak ñeen ànd jaam ñoom nee na digal na leen itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine terewu ko ngeen ànd ci ak ñoom